véhicule le véhicule le voyez le de la de la BIP moom moo rentré moom moo moo rentré oto bi convoi au président Ousmane Sonko le véhicule de la BIP moom moo rentré li nga xamante ni moom moo di oto Ousmane Sonko mi noonu comme vous le voyez le véhicule waa BIP ñoom ñoo ñëw ñoom ñoo ñëw dugg directement dans le convoi forcé ko mi ngi noonu ñoom ñoo rentré le véhicule du convoi du président Ousmane Sonko mi ngi noonu et le président Ousmane Sonko était descendu pour wax ak ñoom président mi ngi noonu lu tax ñuy dugg ci convoi bi directement waaw mi ngi noonu parfaitement nee na leen vous me laissez tranquille ma sinon si vous ne sortez pas du convoi je ne bouge pas c'est ça les propos du président Ousmane Sonko loolu la wax parce que oto bi day progresser waa biip ñëw dugg ci biir convoi bi bëgg a tànc oto président président ba mbëkk oto bi ànd ak président président nee président nee na tant président nee na tant oto bi bougé wul génnul ci convoi am moom il ne bouge pas gis ngeen oto yi ni ñu duggante gis ngeen oto yi ni ñu duggante gis ngeen oto yi ni ñu duggante gis ngeen oto yi ni ñu duggante mi ngi noonu ils sont rentrés dans le convoi mi noonu le véhicule seen véhicule a ngi ñoom ñoo ko C'est un blocage c'est un qu'ils ont fait blocage bi moo tax président Ousmane Sonko mu ni tant que président tant que génn ñu convoi il ne bouge pas le président Ousmane Sonko l'a dit Abbas est en train l'honorable député Abbas Fall est en train de dire ces trois vérités on voit Abbas Fall le chef de la sécurité Wali Wali Bodian mi ngi mi ngi noonu ça c'est de la provocation ils sont entrés délibérément dans le convoi yàq ñaari oto yu nekk ci convoi bi pour bloquer le président Ousmane Sonko qui je rappelle a demandé aux gens de venir ñu dem fële nga xamante ne moo di tribunal donc ils l'ont fait exprès kenn xamul lii lu mu doon kenn xamu lii li mu doon mais le président Ousmane Sonko li mu wax lu leer la dafa ne tant que li nga xamante ne moom moo di le véhicule ne bouge pas tant que ñu ngi jéem a dugg dans son convoi il n'ira pas fii lay bouger et on n'accepte pas nee nañ ay voiture de nervi la le véhicule blanc c'est pas un véhicule de la BIP mi ngi noonu c'est un véhicule mi ngi ngi noonu mi ngi ngi noonu c'est un véhicule sans immatriculation je le précise ce véhicule blanc c'est un véhicule sans immatriculation un véhicule sans immatriculation je le répète ñoom ñoo bëgg a dugg ci biir convoi bi la sécurité est aux aguets et le président Ousmane Sonko li mu wax c'est très clair comment peut-on accepter que véhicule bu bokkul ci dispositif di ci dugg mais c'est c'est très clair la chose est très claire tant que ñoom ay corps étrangers ñi ngi ci convoi bi président nee na du dem on va vers une situation boo xamante ne dara jaru ko parce que tout était bien parti xëy ndekki jël sa oto dem di wuyu tribunal ñu lay galgal et c'est pas normal mais voici le Sénégal voici le Sénégal mi ngi noonu le GIGN c'est plutôt le GIGN mi ngi noonu mi ngi noonu on reprend les choses président nee na président nee na tànk oto yi kenn dugul ci convoi bi mi leer bi dugg ñu tepp tuunu ndey amul noonu booy li ñu wax lu leer la. comme vous le voyez mi ngi noonu président nee na mooy joxe signal kon ñu taxaw tant que tant que auto corps étranger yi bokkul ci convoi ñu ngi ci biir convoi il ne bouge pas c'est ça loolu la président wax waaw et on se demande pourquoi la force publique di def yenn manœuvre yi c'est une question il faut qu'on se la pose président Ousmane Sonko mi ngi noonu waroon dem wuyu ji au tribunal waroon dem wuyu ji au tribunal xëy joxe consigne la sécurité s'est mise en branle pour ñu dem mi ngi noonu mais président nee bépp corps étranger bu dugg ci convoi am immédiatement le convoi va s'arrêter mi ngi noonu on est là ay oto yo xamante ne kenn xamul lu ñu doon intercepter le convoi du président Ousmane Sonko. Vous le vivez ici en direct. En direct et en live. mi ngi noonu. ñu génnee rond-point cité Keur Gorgui. Ces deux véhicules sont venus s'encastrer littéral, littéralement ci biir convoi bi ba créer ay dommages ci yenn oto yi juste oto bi nekk ci ginnaaw président Ousmane Sonko pour dugg alors que ñëpp xam nañ ni c'est la sécurité ñoom ñoo ci nekk c'est-à-dire mi ngi noonu le Sénégal est là et je le répète c'est un véhicule sans immatriculation mi ngi noonu le convoi reprend le convoi reprend mi ngi noonu kenn du dugg ci convoi bi parce que itam lii wóorul kenn xamul kan la doon après ñuy ñëw di dugg ci biir convoi bi la sécurité ne le permet pas mi ngi noonu askan baa ngi génn askan baa ngi génn di tàccu président Ousmane Sonko l'homme du peuple il marche dignement et fièrement vers ce tribunal où le peuple l'attend le président Ousmane Sonko jàmm rek lay am ndax askan bi la àndal moom moo ko waxoon ginnaaw yàlla dénk naa sama bopp askan bi le convoi reprend le convoi reprend mais quand il faut documenter lépp lii nga xamante ne ay bavure la c'est anormal c'est anormal parce que nit ki dafa xëy war a dem tribunal xëy war a dem tribunal lancer un message ñu war a dem tribunal génn këram war a dem tribunal ñu indiwaat ay galgal pour tardel ko pour créer ay problèmes yoo xamante ne mën naa ñàkk C'est inacceptable. C'est ce qu'est en train de dire l'honorable député Abbas Fall, l'élu du peuple. Président Mingini, on est là en mois de février, mars 2021. C'était les mêmes circonstances qui ont produit les mêmes conséquences. Président Ousmane Sonko, oto bi taxawaat convoi bi taxawaat na parce que il faut que ñu bàyyi le convoi mu jàll. Il faut que ñu bàyyi le convoi mu jàll. La liberté de circuler c'est quelque chose boo xamante ne ñëpp ci d'accord président mi ngi génn ak sécurité am baarewul tali sonalul kenn di progresser pourquoi vouloir def yenn yi ci ay otoom c'est de la provocation ce n'est pas de la sécurité je suis vraiment désolé mais voici l'image du Sénégal en ce 16 février 2023 le Sénégal est là mi ngi noonu parce que lii tey buñ ko defee day tax ne tous les militants vont sortir et ils vont vouloir rejoindre le convoi pour sécuriser le président alors que lii mënoon na ñàkk mënoon nañ ko bàyyi mu progresser dem tranquillement ca tribunal ba comme ni mu ko décidé mi ngi noonu mi ngi noonu même pas sorti de cité Keur Gorgui et le premier incident lii kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon on se demande lan la ñu bëgg dañoo bëgg mu dem tribunal wala dañoo bëgg leneen et ça se passe devant les caméras du monde entier le président Ousmane Sonko qui reprend son convoi jeunes yaa ngi noonu père Djibi Gueye Ndiaye honorable Abbas Fall Citizen Lee gaa yaa ngi noonu on avance on avance la sécurité est en de frayer le chemin destination ñi ngi jëm fi nga xamante ni moo di cité ñoo ngi génn dans la tanière du lion cité kër góor gi jëm tribunal donc normalement normalement tey dara warut mën a am ku génn war a dem tribunal war a dem wuyu ji accompagné de sa sécurité de ses avocats rien de plus normal pour le chef de l'opposition du Sénégal l'espoir de tout un peuple sénégalais donc jamono yi ñoo ngi progresser reprendre nañ dugg nañ Mermoz ñoo ngi demaat fi nga xamante ne mooy place bi nga xamante ne foofu la ñu war a génnee président Ousmane Sonko oto yaa ngi progressé waat on reprend et pourtant tout était bien parti yaay booy ñëpp a ngi tàccu ñu ngi koy tàccu président Ousmane Sonko ku nekk ci dëgg ñu jàppale la ku nekk ci dëgg askan bi génn teertu la wax la ni nu sommes avec toi jàmm rek ngay am mi ngi noonu askan baa ngi noonu jàmm rek lay am président Ousmane Sonko lii ku mu neexu ku mu naqari sa problème la ku mu naqari sa problème la in God we trust seul l'agenda de Dieu compte yàlla yor agenda moo ko def ci xolu jaam ñi président Ousmane Sonko le lion est sorti de sa tanière destination tribunal de Dakar ñoo ngi avancé avec le président Ousmane Sonko la sécurité demande à ce qu'on accélère un peu c'est un peu difficile devant parce que li ñu créé ci ginnaaw moom moo indi attroupement bi yëpp mi ngi noonu nee na ngir yàlla génn bi nga bàyyi doomu jaamur bi lii dafa ñaaw nit ñi génnati nañ seen kaw terrasse yi président Ousmane Sonko moo fi jaar jaarati destination tribunal bu Dakar